bu ko defee rek télescopage am jàmm ni ñooy yàlla du cuune moo bind àdduna bi faat bintu te bi mu koy bind ñaar la ko boole muy góor ak jigéen mu mel ni góor moom la jëkk a bind jëlee itam jigéen ci góor li faat bintu doon jéem weddi waaye loolu moo am nun ñoo seeni baay ñooy seeni yaay il faut ngeen nangu ko waaw nun nooy seen baay ah nooy seeni yaay il faut ngeen nangu ko nag ndax maam aadama bi ko yàlla bindee ba pare dafa wéet amul ku ko wéttali sunu boroom bind ci faaru càmmoñ gi moo tax ñu tudd mu tudd xawaa limaasa sumiyal xawaa li annaha xulaqat min cheyin xay ñu ngi ko bind ci luy dund góor lu tax ñu tudd aadama adam ñu ngi ko bind ci lu amul yàlla moo ko créé composé ak suuf ak manaaqi bi boppam ni ko kun nekkal mu nekk nit kon góor jàmm jigu ko ndax dafa bind ci lu dafa dund ci lu amul dafa dund dafa dafa sosu ci la amul xawaa nag moom dafa génne ci luy dund loolu tax jigéen fitna jigu ko gàcce jigu ko ñàkk jigu ko tiit jigu ko xiif jigu ko ñàkk jëkkër jigu ko loo ci dal mu joo yooyu jeex tàkk loolu moom mooy bëgg a nangu ko aywa kon soo fekkoonte ni li fi góor di def képp mooy li fi jigéen di def kon jarul woon kon jigéen di ñëw su fekkonte ni li fi jigéen di def képp moom la fi góor def kon jarul woon góor di ñëw kon yàlla mënoon na indi rek benn yoon benn race muy jigéen kese ngeen nekk fi wala mu indi ay góor yi kese ngeen nekk fi waaye xam na ni am na lu góor man te jigéen mënu ko am na lu jigéen man te góor mënu ko kon euh, yamoo naka lay mën a nekke ci ci tâche yi li ma man te yéen mënu leen ko li ngeen man te ñun mënuñu ko Faat Bintu am lu mu ci junj bala muy laata dem Faat Bintu yaa fa dafa am génn góor gu ne ca tool bay bay di bay di bay ba ñàkk tooy xip moo jabar ji ndeke am na gaynde gu nekk ci taatu garab gi ndeke seen doom ji raam na ba àgg ci gaynde ga góor gi gestu rek seen xale bi ca kaw noppi gaynde gi muy kàllaam bi xam mu def rek samp xelam di daw di daw ba dugg ca ronal ga ni pat waaw moom loolu la man mais jigéen ji mënul loolu xam jigéen man génne ween wi di xool xale bi naan ko nii di ko wan ween wi di ko wan ween wi ba xale bi geesu seen weenu yaay ji moo ñëw ba ci yaay ji yaay ji jël doom si ne moot ñëw ci kër ga fekk fa waa ji génn ne ko si sa waay yaa man jëg gaynde yaa man gaynde xam nga kenn ku ne li nga man mooy loolu jigéen moom lañ ko bind ci loolu bu ko defee kon bu kenn jaawalee daas yàlla ci boppam miy bind boo demee ci surtout nur wala laxsaab sunu borom subhanahu wa taala mi ngi ñuy wax ci wàllu ibaada wàllu jaamu yàlla ñoo ci yem waaye boo xoolee itam ci wàllu santé yow mi fi nekkal ministère de la santé xam ngeen ni wér gu yaramu jigéen ak wér gu yaramu góor bokkul jigéen limitam mi ngi aju ci 15 jours weer wu nekk fukki fan ak juróom lañ la ci may nga mën cee jaamu yàlla te sànq bi ñu julli am na ñu julliwul lu tax julliwuñu taraanga ji leen yàlla boole ngeen di ko def te dañu wax 15 jours mais mën naa am ku gis ñetti fan mën naa koo gis ñeenti fan am na nañu gis juróom-benn fan am na ñu gis juróom-ñetti fan waaye limite bi mi ngi yem ci fukki fan ak juróom soo amee ku koy gis fukki fan ak juróom su ko ëppee na sangu te julli xam ni dootul dereti baax fukki fan ak juróom fan la limite ba yam lu tax ngeen am boobu possibilité weeru dee ngeen dog ci bu ramadaan ñëwee ngeen am ciy bor te góor sañu ci am bor bu lu dafa feebar feebar bu bu biir kon xam nga yam ko amul foofu sunu borom yamalewul góor ak jigéen ci ay àq ba mu bindee aadama ba pare dafa ne ko yaa aadama uskun anta zawjukal janna jëlal sa loxo jabar ji ngeen ànd dem dëkk aljana jàppal ci sa loxo jabar ngeen dëkk aljana kon am na koy responsable uskun demal nga dëkk anta yow wa zawjuka yaag sa jabar jan janna ci àjjana mu ne nag wakkulaa min haysu shi'tuma raxadan gis nga wakkulaa fi ñu yemoo mooy ngeen bokk lekk yéen ñaar kon waru ko néewu ko nga lekk ba pare boo desalee jox ko néewu ko solul ba pare boo desalee jox ko nelaw ko nelawal ba yow mu door a nelaw jigéen ji ko sant nag mooy ajara ajara ab ab ab aawoom moo ko maye gis nga foofu tam na ngeen ko jigéen ju baax mooy am doom ju baax ajara ànd na ak jëkkëram ñëw ba Égypte buur bi kar leen jàpp leen ndax saarata dafa nekkoon soxna su rafet nekkoon soxna su am personnalité jërëjëf buur bi jàpp ko bëgg koo saay-saaye mu ni yàlla maa ngi lay ñaan buur bi bu fekkee caay-caay la namm ci man yàlla nga ma wallu jërëjëf buur bi ni ko nii loxoom loxo bi paralysé mu ne ko loo ma def mu ne ko def ma la dara mu ne ko am na loo ma def mu ne ko defuma la dara mu ne ko sama loxo bi dundatul mu ne ko boo namee ci man caay-caay ma ñaan sa borom lii dootul dañ waaye boo namul ci man caay-caay ma ñaan sa borom mu dindi la mu ne ko ñaanal sa borom mu dindil ma ko mu ñaan mu ñu delloo ko loxoom fàbbil bi ñu ko delloo loxoom mu ni occasion bi du ma rëcc waay jonga ma nii maa ngi moom mënuñoo il faut ma dem ci moom jóg nag song ko nag tànk yaag ndigg la lépp paralysé mu jooy nag ci kanamu ndoxu si ne ko dama bëgg nga may ma delloo ñaan sa borom mu delloo ma samay loxo ndaw si ñaan mu delloo koy loxo mu ne ko nag non seulement dinaa la bàyyi mais dinaa la may jaam jaam bi ma lay may ne du jaam ñun ñu leen ëpp doo leen kidnappé leen mais du ñu ay jaam ci copte yi la bokk ñu baax lañ mooy xaajara mu yëkkati xaajara moomu may ko ko mu ànd ak nijaayam dina jëf ñëw ba fii ci Palestine ñu toog waxtaan mu ne ko nijaay maag sëy nañu quatre-vingts ans te amuñu doom te mission bii nga yor soo amulee doom mission bi du àgg te xale bii ñu ma may nit ku ñuul la africain la gis nga yéen africain yi bu leen xeeb seen bopp Afrique yi bu leen ci xeeb seen bopp l'islam bi ak nit ñu baax ñi fi nekkoon ñëpp ñi ci ëpp ñu ngi bàyyi ko ci yéen parce que Haajara africaine la Égypte la dëkk kon lu tax Afrique bëgg a ñàkk fayda lu tax jigéen Afrique bëgg faible ci kanam tubaab yi lànk leen mu ne ko nijaay dama la bëgg may xale bi bu yàlla tuddee doom sa diggante ak moom xale boobu mën na yégale sa mission Ibrahima daal di jooy seet daal di jooy xam nga yow boo waxee sa jëkkër ne ko dama laa bëgg may sama mbindaan mu jooy man dama xam jooy yi mer la xam nga jooy yi mbégte xaw mer xaw ma daa kontaan waaye jooy na de. xale boobu ndaw soosu moo jur Ismaayila. Ibrahima moo ci taawuloo Ismaïla Ismaïla moomu da doon jooy jooy yu métti aawo bi ko mayee woon fiir fiir gu métti di ko ne bëggatuma gis sama wujj wi ci biir kër gi na génn mbaam a génn moo a mayoon yéen a la mayee bu sunu borom ni ko defal li sa aaw bi wax ci génne nag war mbaamam uuf doomam jabar ji ne ci ginnaaw booba oto amul pasaroo amul mbaam kon dee leen dugg ci R4 yéen itam dee leen dugg R4 inna fi R4 barakatun jamono day maa nga tawarkal kenn mësu ko gis jamono day dox de ah. mook moom mook moom mook moom ba fii kaaba gi nekk tey booba kaaba gi mu ngi sept mètres ci suuf ndax mbëndum yonent yàlla noox ma moo ko màbboon ba kenn xamatul fu mu ne teen bi muy zam-zam ma nga noonu soo taxawee ci kaaba gi soo xoolee lu mel ne du fi jëm am na benn benn karo bu ñuul bu ñu ko def foofa la teen ba ne moo sës dikk ci kaaba yàlla bëgg leen ëmb xam nga an nafa ndeysaan oustaz Alioune Sall wan ma ko mu ne mu ngi nii ñun ñaar ñu ànd jooy ba bëgg a dee ndeysaan foofu fa la Ismaayla doon jooyee di jooyee di jooy ba këdd tànkam Jibril këdd fa tànk teenu sam-sam génn fa te xam nga liy problème mooy ba muy dem dafa ne ko waa nijaay koo ma fi bàyyeel lu neex sa aawa moo tax nga indi ma fii wala yàlla moo wax nga indi ma fii Ibrahima ni ko yàlla moo wax naa la indi mu ne ko woon isan la yu da yow na comme yàlla la ko wax yàlla du ma sànq dinaa toog dinaa toog muñ di ko xaar moo tax dee leen muñ yéen tam loolu seen atu la ku muñ muñ waaye jigéen joo xamante ni def jëkkëram wujj du ma ko nangu fii laa koy jëflante ak yow jéega mam dem tribunal di leen jox ay droit ak i loi ngeen di ko exploité di fénku ci kaw góor ñi di nangu seeni salaire defe ni mooy ndam ku ko jëfam daa jooy fii jooy fa nu jëm man ko sama wax neex ku ko def daa jooy fii jooy fa nu jëm jërëjëf jazakumullah jigéen ñi lay ñoo baax aywa fu ma yemoonati yéen ngi dégg dama ni ba mu ko nee yàlla du ma fee bàyyi mu dem a dellu ca ca ca ñaareel ba ca awo ba def fa lu mat juróom-ñetti fan bi ndox mi jeexee jibril moo ñëw sunu borom ni ko demal ca jigéen jee nga ne ko duma gën a gore bi jëkkëram di dem dane ko koo ma fi bàyyil mu ne ko yàlla laa la fi bàyyil ndoxam jeex na amatul ndox kenn wéttali ko demal nga mayal ma ko ndox kon ndox moomee moo tax màkka bari nit ñu fa dëkk waa giir jurhum ñëw fa ba ñu màgg ba ibrahima màggee ñu may ko jabar jabar joojo mooy jur di jur di jur ba waa Quraysh ñëw waa Quraysh ñooy ñëw ba jur sayyidina muhammad sallallahu wa sallam kooku ko liggéey du jigéen kon dama ni bu leen nangoo yem góor ñi ci yenn yi yàlla daf leen a yërëm jigéen moom la yàlla wax ni boo koy takk yow ko góor gi yaa koy jox can mos ngeen gos bu jigéen ko joxe can xanaa nga màggat lool di wut takkoo ku màgg di wut na ko mën ngaa joxe lu ne ah jërëjëf madame la directrice ñu ngi may penalty rek moo tax neexu leen xulool nag ci confrance ñu baax ngeen ñii neexu ñoo xulool ci conférence de dama ni première àqu jigéen bi nga xam ne mënu ko yem ak góor mooy bëgg nga ma mu ne waaw kon deesu la maye ca force yaa moom baatu waaw yaa moom it baatu déet sa baay moomu ko sa yaay moomu ko kon góor yam naa jigéen foofu ñaareel ba can mooy dot bi yaa ko moom sa yaay sa baay moomu ko te dañ la ko war a jox sa àq la dañ la ko war a jox ñetteel ba yaa ko war a dëkkal jëndal ko kër mbaa nga luyal ko wala nga wut ay baraag dëkk fële ca haute station bi bu la ko nangulee yéen moom yaa xam yéen bokk fa ne ñeenteel bi yaa koy wodd kon jigéen war na trois mois yu nekk mu daloo lu bees gën ngaa yàgg six mois waaye jabar joo xam ne du daloo mukk mukk tëbaski ba tëbaski ñuy cuub rek cuub rek jigéen ñi cuub lañ bay bëgg a dee góor ñu yërëm leen leen war na it semaine bu ne moo lekk yàpp waaye bàyyi sa jabar mu buuna buuna buun bët loolu baaxul loolu àq la dee leen jënd yàpp leen ko jox waaye jabar du buun yooyu ay ak xama xam nga bu ca des xam bu ca des mooy bu feebaree nga faj ko donte nag moo la ëppalee soldu donte moo la ëpp ay moyen loolu yow la war su la ko teggilee nag wàcc na la waaye su la ko teggilul yow la war su la ko baalul ëllëg yomal kanam danga koy fay kon parité nu mu mën a duggee foofu yow lislaam may na la ni la am nga droit jàng baax na incha allah am nga droit jàng am nga droit am diplôme am nga droit di liggéey am nga droit ñu lay fay bu ñu la fayee sa solde boobu jëndaloo woon la ci ceeb fayloo woon na ci luyaas fajloo woon la ci gone fayloo woon la ci am njàng lu ñu la ci def loo defal ci sa poos may ku la neex lislaam du la ci duma du la ci dóoru peen waaw góor mën naa nag jigéen foofu ah boole yow ko góor ki nag yaay man di ko mënaale yaay dem di ko demaale yaay dem di ko yóbbaale